sëñ Touba. wér na. Ah. xam nga loolu dama ciy wax tuuti te jàll. waaw point bu bu rëy. Mhm. waaye damaa wax ni. maam Cheikh Ibra Fall Baabul Muridiin mi nga xam moo ah. nekk sama xol. bisiri bisiri waaw. Ah, bëggoon nga bëral nga bëral ko ah day wax Amérique daa bëggoon ñu bëral ko de. daa waxoon Amérique mu ay murid. waaw hmm. maa ngi trouvé loolu dëggantaan. Hmm. bi ma. Hmm. américaine daanalee ma. waaw man américaine. Mm-hmm. ndaayam américaine baayam américain mu daaneel ma ci sëriñ. ah waaw 19 heures laa ko ci timis. 137e mm-hmm. avenue. Mm-hmm. mu ni pis ma gestu. mu ni can you help me please my friend. ma ne ok what do you need. mu ni brokers and me today you die. I have no money in my purses. I want to eat something. I'm so angry. Can you give me some dollars please. I want to go to the shop to buy something to eat I'm so angry. Mm-hmm. ma ne ko ok. làmb sama poos damay ñaan nee daa xiif. lu ma ko may ci dollar baax na mu jënd ko lu mu lekk. ma mm-hmm. lamb sama poos may ko ñeenti dollar. Mm-hmm. mu ni bala ngay jàll jox ma sa numéro téléphone. Mm. ay nit yoo namba fa yoo namba fa. ma ne ko you don't need it mu ni yee ay need it I wanna got it jox ma sa numéro téléphone. Mm. ma jox ko sama numéro. dem mu dem. Mm. ma toog ba 3 heures du matin mu bind ma message ci sama téléphone. ni ma mais Cheikh Ahmadou Bamba bless you yàlla na sëñ Touba faj sa aaju. daan na américaine bu xonq cooy la. Hmm? ma laaj ko foo xamee sëñ Touba mu ni ma loo gis mooma dootoo ma teg bët waaye na nga xam ne amul morom. kon foofa xam na lu sëñ Touba mokk américaine américaine moo def ak man lool. Hmm? labbe ngi hmm. labbe ci Dakar gii la xewe ne ci cathédrale bi ba 18 heures. mu ubbi fenêtre am di séntu mel ni kuy jël air. taalibe bu xaw a sàggan bu mel ni man bëgg a gaanuwaay tuur ndox ñëw ba ci niiru jàngo bi mu sëgg fa di tuur ndox nekk labbi ba nga koy xool mu tuur ndox ba àggal mu ni ko héey li ngay def rafet na yow mu ni ko déedéet mu ni ko jugal fii mooy sunu cathédrale di jàngo bi est-ce que bu ñu defoon lii sa jàkka dina la neex mu ni ko déedéet mu ni ko amuñu fu gën a rëy fii jugal te dindi li fi def taalibe bi def ko yaru ni ko léegi ma dindi bëgg a am saw mi mu ni ko déedéet saw sobe la wutal ndox nga sotti ko ci kaw làbbe bay wax de mu wuti ndox sotti ci kaw bëgg a an mu ni ko déedéet comme def nga ci ndox ça suffit demal nga wut suuf su bees nga teg ko ci kaw te soo lëggee ba mu la dal mu wut suuf def ci bëgg a mu ni ko baax na xanaa murit nga hmm. làbbe bay wax ak moom mu ni ko waaw murit laa mu reetaan ne ko ndax xam ngeen sëriñ Tuubaa lu mu doon hmm. mu ni ko déedéet dama ko yaakaar waaye xaw ma lu sëriñ Tuubaa mu ne ko waaye dégg nga wolof taalibe bi ne ko waaw dégg naa wolof ndax doomi wolof la mu ne ko boo boo xamut li ma lay bëgg a laaj nga wax leeral ma ko ma leeral la baatu tëj fa ndax xam nga lu muy firi ci wolof tëj fa tëj fa mu ne ko waaw tëj fa kay xam naa ko ndax ci àll balaa yaroo jinax a ko daan def bu jinax gasee ba nga jàpp ni fii lay yem day génne fa sori bu fëlewaat fii looloy tëj fa làbbe bi ree ni ko effectivement yantu yàlla Mouhamed le profet islamique. dafa fël dafa gase ci a Madinatul Munawara. fële Sénégal yanantu sëñ Touba di tëj fëm Sénégal réere sëriñ Touba. kon sëriñ bi ñi ci bitee la ko gën a xam. damay wax ni yenn saa yi xaal yóbbu ma ci. du ma bëgg a tee wax sëñ Moussa Kane. ndax dañ ñaan li mu gëm sëñ Touba tax. su ma nee sëñ Baye Jaxate dañu ne taalibeem la. su ma nee sëñ Falloo ko wax nangam ñu ne day doomam. waye ñi ci biti ñoo ni seigne Touba amul morom. banka sa bara ma dem kenaba kenn Tafsir Mor Gueye. kenaba la dëkk mu xadam la. dañ ñu ko kuy seigne Touba. mu ni sif ardana tabaxat. wa xawla o ku oosu. bambal baradu lazi yusqi bi yusqi bi al ku oosu. nee na sëriñ Touba. dafa melni yàlla sunu boroom. dafa sak abduna ba noppi. def ko muy plateau kese. mu jël mindeef yi mu sak yépp def leen ñooy kaas yi mu jël xaadimu rasul def ko muy baraada bi xelil yàlla ku mu xelilul doo naan tey ëllëg cana ba la dëkk bankal sa baaraam ma dem fuuta ñaar demal xaadim Omar kan fuuta dëkk mhm. daa xool sëriñ bi ba mu yàgg mhm. mu ni indal xuróona mhm. bilaa suniyaa azimatahum fii raaxatayka fa yanqaadu ma an xuuda ni neexul ba neex waaye yàlla moom dëgg nañ ko wax nosu yëpp réew yëpp jamono yëpp gis naa leen dañ dem ak seen bopp kenn du leen forcé hmm. ba ci ñaari ténk xaadima rasul ñu jébbali ci moom mu yor seen i ruu kenn mënu ci dara Fuuta la dëkk demal ñett bankal sa baaraam ma jëm Njaasaan ñëwal maam Mouhamad Lamine Kuntiyu hmm. kon dëkk Njaasaan mooy sa kilifa hmm. borom wilaaya bu rëy la bi sëriñ bi demee ci géej gi sëriñ ma fëri Njaay waaw di taalibe bu mag ci sëriñ Touba. sëñ Basiroo bind su ma paree wax na ma ko waxe sëriñ ma fëri Njaay dafa dem ci kër maam maam bu nuyoog moom nuy waxtaan ay kóllëre lañu woon dama hmm. yàgg mu ne ko yow kuy sa sëriñ ci mag ñi ci senegal sëñ ma fëri Njaay ni ko xaadimu rasul hmm. mu reetaan ni ko cey kooku dañu ko topp ñëpp hmm. dañu koy riire kenn wàll gi dañu koo réere waaye wàll yi képp xam mooy kan ni ko xam nga kuy sëriñ Tuubaa mu ni ko déedéet mu ni ko ñëpp dañoo jàpp ni problème bi ma am tubaab bi boo ko génnee loolu mooy zahir bi baatin bee jara xam ndeysaan baatin bi ku yàlla am. da daje fa yàlla. yàlla woo leen réunion. ba ñëpp daje. mu génne may goo xam ni. ku ko am yaay mën a ràmm saw xeet. ku ko am yow lay jox barke. ku ko am li des ci jamono lépp da lay wis. bi mu tàllalee may googu. ñëpp soxla ko. waaye kenn amul njëg. ni ko Serigne Bamba rek am njëg. loolu moo waral coono yooyu mu am ak tubaab bi dal ko. Mhm. waaye bu leen ci sonn. Mhm. day ñibbi si waat senegal ak jàmm. su ñëwee barke dina ne ci loxoom ak ku ànd ak moom su ñëwee texe gu wóor àjjana dina ne ci loxol Serigne Touba bu ñëwee prestige bu jëm kaw te dootul folli ku moo koy yor su boobaa ku xëccoog moom jëm suuf yàllaa ko farle daa jënd sëñ Basiru ni dama koy nettali ni mu ko waxee hakka alayya ma fëri njaay ahadul muridina al muhibbina zawi din innahu kaana yawmun maa abi muhammadul kuntiyu fi xariyati njaasaan qaala ولما قال بنا المجلس سألني من شيخك فقلت له الشيخ أحمد بامبا قال الذي غريب قلت له نعم قال يزونون أن الدولة أرادت نفيه وتغريبه كلا ما ذاك إلى سبب ظاهر أما الحقيقة فهي أن الله كشف للأولياء ان مقام عزيز عنده لا ينال إلا ببلاء من أعظم البلوى فلم يترشأ له إلا شيخك الشيخ أحمد بامبا فوقع عليه المعنى كما رأيت أما أنه سيرجع سالما إلى الزنغال وستكون البركة على يديه لمن تبعه فلا يمكن لأحد أن ينازعه فيه فسبب ذلك تراني لم أختار أن تكون تلامذتي من أهل الزنغال بل ما وراءه لأن جمعنا نيو ku bañ a ñàkk sax taalibe bu fi woote ku woote di am taalibe yu la bàyyi sa kër dem jébbalu ci Serigne Touba ndax jënd fi yàlla maam ko wax bankal sa baaraam. bank naa maa ngi jàll ci ku ñuy wax al ay nay ni ca gànnaar. Mhm. dañuy waxuma l'islam. Mhm. Serigne Touba laa wax. Mhm. lëggéey na yàlla loo xam ni. njabootu islam jëpp bu ñu dajee woon. ñu boole ci yéefar yàlla mën na leen a yërëm. ci liggéeyu Serigne Touba. ñu ni ko bind ko. mu ni lakin lahu xasanaatun. ku na law xusimat. yawmal jasa bayna ahlil kufri. maa taraku kenn du lakk neera. amna ko len serigne Touba. yow rek la gis ci yàlla. soxla wo khalis parce que Samba jaar may lu waxon beugul wurus. beugul khalis faliwul nag ak doom. gëlee mi ki sëfam la dan jox naari gata am ko ne ko. ya bañ xaalis. daawoo ko lal sa tinku loxo. wo xet xeeb wo yem yow yàlla kesse ya wutu rasulullah joxoñ serigne Touba ne ko. yow seexul khadim ta faraqatil amwaalu. min ka sazar mazar. banaanu ko laa tutqi wa kafu ko mini déet. mu ni ku fekkee dañuy wax ni yonent bi meloon ak ni muy yarewaate sëñ Bamba rek ñëwaat ci pénc mi yare ni Moustapha yare woon mm. la yonent bi daal defal saaba yi sëriñ Touba ko defal ñoñam mm-hmm. naar bi nee na kuy seete nawleem def nga erreur mm. nawle sëriñ Touba abu منكو بندل مني من المربي بما ربى الرسول به حرفا بحرف وما في الجيل شرواك واي سيرين شيخ مباكا كاين فاطمه بروم نا سدمبا لو ديمبري سي سيرين توبا دني فهو الذي احسن سطار سيرته وجوده اما اوتانا وبلدانا وما لاحنف هلم ان قرنت به لقمان عصرك هزل فتل خطبانا انا ريو يب لا واخ بو فاتيرا نغا امي سيرين بامبا كو فا histoire islam bu rafété serigne bamba nu ci dimbali ñun jaaxlewuñ ci ahnaf de serigne bamba ko gëna a lewet xaatimu taax yi ci tabe sama mamé ko gëna tabe luqman yému nu ci xam-xam sama mamé ko ko xam xam-xam khadim rasul te ibrahima Diop masar nee na ko walillahi ilmun min kalam yaxwi man madaw wa man hana aw yati min ahli al ma'arif walillahi jodun minka yahkihi wabilun ويخجل موج البحر ma kulli ansifi Cheikh Samba Diarra Mbaye nee na mboolee muqaddam laa di woo boolee ki alaaji laa di woo boolee ki seex ku ma ci woo na ni labbayka mbaa naam di leen yëgal ki ma fi gis fu ma fi gis ku ko fi gis te àndul ak moom ka mu fi gis gënu fi mbaa saful xorom na ngeen ma laaj ku ma fi gis sangub jamono laa fi gis na ñëpp àndee ki ma gis bu kenn dégglu turam seexu siyooxi ahmada ki lay fi tegtal ahmada daa fi tagg muhammada mu tàbbal ko biir këram ku la gënal la la gënal. moo la gënal la la gënal. ka la gënal la la gënal. Mm. moo mat a am moo mat xam. Mm. lu may la jël mu ne ko cas. Mm. sànni ba dootuma ko gis. wala mu labal ko mu ni mes. kii ma gisee la mat a xam. sëriñ Mbaye Jaxate ni la jee fi wut lépp a ngi tey jii ñu denc fi yow. Hmm. la dee wut nekkatul màkkaa ki sa ki xaay hmm. fu as njariñ ma sa nekk ak barke dug na fa tey <laughs> ay xott des fépp yow mii bamba yaa di gañaay ah. lu man di xew hmm. noo lay yaakaar ak ay bégge nun sarax nu làq yaa gën ay nijaay gën i bàyyi yaa ëpp julli gu baax ak wird ëpp tasab ah. gën fopp koo rek ajak dem jàkka yaay sunu waay seen may jaxate nee na ko sëriñ bee di saa koor ak sama julli faaw man bu ñuy woor a koy jullee ko wird ma ngëpp ko man def na ko mi sa xam-xam ak sama diine sama samay solo jallul bamba yem na ci mo fi gën sama bari man-man dootu jëm ci lu dul mbiram lu jëm ci mom ak moy la hmm. tag moy farul tagal hmm. dama lottu ci def hmm. lottu ci bayyi mo waral ma jibbal ko sa mbir genn ci doye deeki fen ku lott day fam ay mbiram yep jox ka man mu far ko defar mo gën di yak ka wax lu bon waye seigne Moussa Ka neena day ñaw ci jaw ni ñanaaw di xotti di lee asamaaw hmm. lu mu wax fa deewaan ñu ne waaw hmm. muy fal di folli ci lu sax day bindu guddi du nelaw hmm. bu jëmm yépp ne selaw mu dem ci pays bu ne xelaw bu bët sa tee mu dina wax kii ku ko gis sax ku la gis ku gis ku gis waa ju ko gis su ngeen demee ca booba bis <laughs> mu ramu leen fa kenn toog doom yi ëpp nañuy sëriñ ah. see xam yi doy nañuy sëriñ ay taalibeem raw nay sëriñ koy roy na roy ci lii ma wax da ngay xool seexi sëriñ Tuubaa yi nekkoon nga xam ni kenn du sëriñ jéeri waa daal sugu ah ci bi muy ñëw ci sëriñ bi tudde na sëriñ Touba fukki doom ak benn te gisu ko ma ne loolu fala wiraaye mhm. su amee doom ni Ahmad Bamba Soug mhm. ñu ni ko kuy kooku mu ni ca kanam lay woote mhm. moom la yàlla jox mbiru jaam ñëpp mateel koo yëg moom la tuddee sama doom ba tuddi ko fukki doom ak benn nee ku bokk ak sëriñ Touba jamono ni da ngay woote te yàlla tax sëriñ Touba mi nga gàntal mbiram dëgg koo sukkandikoo woon ba jàpp ko bu ëllëgee yàlla soppi ko neen Hmm. ndax yalla jox na léppam Serigne Touba. Serigne Jéeri wa Daal Sugu. damaa wax ni sëñ Paate Amar. Hmm. naaru dar man ko ba. Hmm. sëñ bi da koo gëdd. ni ko Paate Amar mu ni Mbàkke. mu ni ko wax ma loo bëgg nu def ko ci saasi. sëñ Paate Amar ni ko bëgg ma dara yow Touba ko may na la ba wax ma li nga ko kon dencal ma samay mbir. nang ma lem ni parasol. bu yombal ak yaa amee pencu yàlla. nga door maa firi ñu xam ma. Touba ni ko ci yem ak yow. su ma la firee yombal xiyaam booy ñëw ca péncum yàlla ku yàkkamte dina la jaawale ak rasulullah ngir salaire bu bari kooku taalibi Serigne Touba la xaadimu rasul kon nag ñii <laughs> lanu xam kenn xamu ko sëñ Ahmad Faa Jama ñang waaw tey wajële bàyyi sëñ dëkk waaw bàyyi sëñ dëkk ñang mhm. soxna Awa Balla Diop mhm. mi maam Thierno yor am ci sëñ Moodu Awa Balla ak sëñ Cheikh Awa Balla mhm. Serigne Touba ne ko na nga jël soxna si jox ko sëñ Ahmad Faa Jama ñang mu adoor cee am sëñ dëkk ñang muy seen rak bokk ak ñoom jenn nday dégg nga wax bi Amadou Faa Jama Ñang soxna Faa Jama baati Mbàkkee ko jur sa yer soxna bu sa Mbàkkee ko jur maam maaram jur ko nijaay yi Sëriñ Tuubaa la ci mbokk bi ko sëñ bi gaaralee yoonu murit dane ko lu tax may jébbulu bu dee téere yi xam naa lépp bu dee mbokk nijaay laa ci yow bu dee jege yàlla fii laay toog ci suuf bu malaaka yi dee déyante ma koy dégg sëñ Tuubaa ni ko toog ci suuf di dégg déyante malaaka yi mm. fexe ba bu ñuy déyante nga fekke fañ koy déyantee ko sëriñ bi xam ni jàng la doy la xam-xam bu rëy mhm. sëriñ bi bàyyi ba julli jot mu ni ko doxal jiite mhm. mu taxaw ci kanam sëriñ bi rocci xam-xam bépp rocci faatiya di ko mhm. seetaan mu dem dem mënatul a jàng yi ba mu ba mu génnee ci julli gi la raam jox boppam sëriñ Tuubaa sëriñ bi ni ko ndegam xam nga ni kon jàng kese kese lu si man ndax mën naa ko rocci dama lay laaj léegi ndax dama lay delloo la nga yoroon te fekkilil la ko am dama la yulli ba nga set ma solaat la mu ni ko yulli ma ba set wicc nga door maa sol ñoo ñooy mag ñi ah, alaaji Mbàkke Buso nañ ñu yulli waay bañ set ma ne alaaji Mbàkke Buso nu sol nu sol nu alaaji Mbàkke Buso ah. Ah. ku mel ni moom ci xam-xam amul hmm. fii ba màkka moo raw xam-xam hmm. kese hmm. fii ba màkka moo raw te nee na li ma gis muy farata xam naa ko lii sunna xam naa ko waaye lii farata su ma xëyoon Sëriñ Tuubaa ni nekkatul farata loolu laay gën a gëm ci li ma jàngoo daara yàgg sëñ Touba. bi sëriñ bii bind Masaalikul Jinaan ñoom ñaara bokk nekk 24 heures. benn kaasu wit ci ndox la ñuy jëfandikoo. ak ngëbu baraay. ci la tàmmee xiif. benn naar dani man de gisuguma sax sëriñ bi. waaye yow moom amoo morom. ilaa sayyidin. xallaahu. rabbul wara tifla. wa xallaahu bil aadaabi ajmaa kuxla. wa sayyarahu baxran muxiitan bi kulli ma faqaarun wa badrun إمام الحدا بحر العلوم الذي دعي بمبكي بوسل ممدوح بين الورى كلا بنا مسجدا لله أحسن بنية يؤدي حقوق الله إن بات أو زلا ويأمر بالمعروف من بعد ما نهى عن النكر لا يخشى سوى ربه جل naar yi dañoo jaaxle ci moom alaaji mbàkki bu sa moomu bëggut a nekk dara mhm. lul taalibi sëriñ Touba ci yoon yi mooy neuvième taalibi mhm. li tax huit jiitu ko mhm. tamit mbokk sëñ Touba ko yebaloon mu ànd ak Seydi alaaji Malick jàng ji miraas ca ngiit faam moo tax huit raw ko bi sëñ Touba taxawalee yoonu murit muy bisu àjjuma ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ciw koor yàlla dogal premier taalibi di sëñ aadama Gueye sëñ Moor Birane géey bu Kalsaan nag moo njëkk a jébbulu avant Mhm. waaye bi yoon wi sosoo sëñ Adama Gueye njëkk a jibbu mhm. sëñ Mor Birane Gueye moomu mhm. mooy maam yi tëgg yi sëriñ bi woonal na ko njaareem mu ñëw sëriñ bi di ko wargaal ba ngoon sëñ bi ne ko soo gisee ma woolu la daa am lu ma la bëgg sant ndax di nga ko man mu ni sëñ Touba loo santaane ñu def ko sëñ bi ni ko ni ma waa adduna soxlaa ni ma waa barzaq soxlaa ko raw ma bëggoon laa yónni barzaq nga demal ma fa soo demee nañ ma soxlaa ma jiital la fa nga fa imaam taxawul ma leen lool laa laaj ndax mën nga faa dem mhm. mu ne ko mën naa dem Mbàkke sëriñ bi jox ko càngaay mhm. jox ko parfum liban mhm. jox ko perkaal boole ko nag ak ndaw ni ko demal soo demee ni nga jël kaamil di jàngale di ko ñu la koy jàngal alxuraan suñu ko jàngee ba àgg suutul ankabóot suñu boroom dina ngelaw su ngelawee dina taw bu tawee dinaa yóndi ki yor malaaka mi jël ruu gi mu jaar foofu jël sa ruu nga demal mbarsàq kooku laa mooy sëñ Mor Birane Gueye bu Kalsa lii gars yi wax ci pénc mi hmm. njàng mu tuuti la am waaye ku xam dara da nga xam ne sëriñ Touba léppam kéemaan la la wax dañoo rek waaw ndax sëñ Touba dafa wax ni hmm. fi mu ne ñuy julli laa lay bëgg a wax hmm. képp kuy julli di dugg ci jàkka ji sëriñ Touba tax ñu fay la baggal sa baaram dama la di bayit de benn baggal sa baaram moo ni ne mallëkanii maaliku kulli jaamie wa kulli masjidin munal ma jaamie looy lan mallakani moy fexlu bi Je arab ak may Je kan maliku kulli jami, wa kulli masjidin kon maliku bobi, moy Je bi moy sujet luñ ko mom lo mo dal ma mafulun bihi xamul ci sujet verbe complément pour que la soit la phrase soit complète il faut qu'on ait un sujet un verbe et un complément d'objet direct ou indirect ou la donc dafa wax ni malaka nii ci arab malaka nii tout mm. mooy moom na ma boo mm. ci deful sidda mm-hmm. waaye boo ne lëkk nii mm. nga def ci sadda ba mooy wax ni moom loo na ma jëma approprié man la yàlla moom loo mm-hmm. sëñ Tuubaa nee na am na ñu koy firi ci penc mi di ko yàq nag naan sëñ Tuubaa nee na moo moom jàkka yeeg jumaa yi loolu boo ko waxee da ngaa wàññi sëriñ bi bi dépassé na loolu mm-hmm. soxlawul ay bâtiment ki tabax déedéet waxul maa moom jàkka ak jumaa yi dane yàlla mi moom jàkka yi ak jumaa yi ndax alxuraan moo ni woon wa anna al lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada ci suutul jinni kon waxul maa moom jàkka ak jumaa yi dane yàlla mi moom jàkka yi ak jumaa moom loo na ma la mu dikk ngay dem ca jàkka ak jumaa maa ko moom ku ci jotati maa lay jox kon dani man lëkk moom loo na ma kan nga laaj ka ko moom loo mu ne maaliku kulli jaami wa kulli masjidi ci mhm. mom bepp jakk ak bepp juma lo do mom lo muni munal ma jami xewal ga tax ñuy dajé ci jakk yak juma ya kon ya ngi julli ba roo mhm. te bañ mbiru Serigne Touba ci penj mi mhm. xamal ni moy tax ñu fay la banka sa baaram ngay entraîner rek waaw entraîner rek banka sa baaram xam nga bu ko ñaare ak màkka ponk la waaw ci ku ko man waye serigne Bamba ne ku jugi fi dem ba makatal mukarrama def sa tawaful de nga wada ak lu la neex defal ifaadaak ñoom ñëpp ñoo ngi seet mhm. ba ngay def tawaaf def nga ko ba àggal sa juróom-ñaari yoon mhm. nee na yàllaa ngi contrôler sa xol mhm. bu ko lañ batee xool te yàlla dara umpuwul ci moom bu ci fekkee genn toq bañ sëñ Tuuba nee na saaj màkk baaxul na nangul yàlla nangul te ñaar ñi yooyu nangu nu mu ko waxe tawaafu kulli man alla ya ankara indil ilahi wa nabiran yuskara sëñ Bamba nee na ki amut tamit mooy dem màkka bul lebi bul sàcci bul tappale bul triyande sangul ba set loo rafet la ci yére solal oto bu jógee fii Dakar jëg jëlal na romb Thiès na romb Cenaba na romb Kaba na romb Bambey ak ma moo xam ak xombal na dem romb fu ñuy wax Bambey romb Njaaréem na dugg Touba. waaw soo duggee ziar ma soo génnee kun la alhaaji ne ko labbayka hmm. ndax yàlla defal na la yoolu aj màkka mu ni bindal mu ni wa hajjatan hmm. hmm. li man bi do fin irtada wa hujjatan ala muxaalifin xada ca si seexul xadim sëñ Tuubaa ne kuy woote ci yoonu yàlla ak koo mën a doon ak foo mën a dëkk ñu lay topp nga ñëw di la topp si ak yow may woote su dee sa xol daa gàddal ci ziyaare ma sa ak yow ña ngay woo ak ña lay topp yaa ngi riir di leen riiral ci yoonu yàlla man daa ilallahi wa rasulihi walam yazur biya daalun mu diilun maa xaw mi waxi sëñ Tuuba tegal foofu sa loxo ñu ñëwaat ah waa gars yi daa mel ne Bichri wàccagul